بسم الإله إفن الأدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإله إفن الأدار يالله سفي البقاء به لي فيك يالله bismillahi finin ak daara yàllaw safi baqa abihim li fika yàllaw ya man lahul amru ya man la sharika lahu auzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi alil azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ak ñun ñu seetaan seen émission bi ñu duppee Ëttu ñu di ko amal alxames ju jot bu vingt heures tegalee fanweeri minutes ci seen télévision Lamfal TV noo ngi amaan mbégte di leen nuyu nuyoob jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyoob taalibe ak mbokkum taalibeem di jiital ci nuyoo boobu jëwriñu yoon wi di Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom gën ko fee yàggal lool te gën a doole ak wéram waaye di siyaare soxna Daba Mbacke bintu maam Cheikh mi nga xam ne moo fi des ci doomi borom gaa ñu di ko ko xoolee yàlla ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a doole ak wéram di leen nuyu nag ci turu Serigne Abo Mohamed xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke eh, di leen nuyu itam ci turu commission bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu màggal gi. te jëwriñ ji di sëriñ Cheikh Anta mu sëriñ Modou Rokhaya waaye feggoo ak rakkam sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Abdoul Khafour ñu gën ko miin ci Mamor Toubatoul ak sëriñ Cheikh Abdou mu sëriñ Amdi ak yi ñu ko seqal yëpp. bokk yi ñu am mbégte toog ci jataay bi nga xam ne ñi ngi ko seq ak lenn ci euh, lajna saqaafiya bi muy commission culturelle bi waaye ànd ko ak lenn ci commission bi yor wàllu communication ci màggal gi te loolu ka jiite di sëriñ Cheikhouna Mbacke mu seriñ Amidoum feggoo ci ak sëriñ xaadim sali waaye ci commission culturelle bi ki ko jiite di sëriñ Sam Mbacke mu sëriñ Gédé Mbacke alquran ak sëriñ Afe Maxtaar feggoo ak sëriñ xaadim Mbacke mu alaaji seexu ñu fas yéene nag tey jii seq ab jataay ngir waajale ko màggal bi ubbee jataay bi jëm ci eh, eh, woote Serigne Touba Xaadim Rasul bi nga xam ne Serigne Touba woote woon na ko lan la Serigne Touba woote woon ak bi maam Cheikh Anta déggee woote booba nan la ko wuy si woon ba mu wuy see la ko ci yàlla jox fan la ko jaarale ak nan la ko doon fàggoo loolu mooy nekk thème bu njëkk bi xanaa damay bàyyi ak sëñ Cheikh Naar mi nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci wàllu communication bi mun yoo ak bokk yi su ko defee bu noppee ñu daal di sóobu ci waxtaan aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah salawaatullahi wa salaamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci turu njabootu borom gaawaan gépp jaar ci sëriñ Abo di xalifa sëñ Modou Mamoun te nekk ci dëkk bi Daaru Salaam di taxawu màggal gi moo jox ndigal sëriñ Cheikh Anta mu sëñ Modou Roqee mi nga xam ne moo yor kàddoom mu joxaat ndigal ñu taxawal ay commission yi te commission yooyu communication bokk ci ñu teg ko ci suñu loxo ñu fas yéene tàmbali liggéeyu màggal Daaru Salaam bu ren jii di deux mille vingt et un ñuy tàmb ñu fas yéene koo tàmbali si bismillaahi rahmaani rahim di ñaan suñu borom defal ñu ki tawfiq bañ àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin tey jii nag li nga xam ne moom lañu bëgg ubbee moo di ne commission bi nga xam ne ñoo yor wàll mooy commission culturelle te sëriñ Sam mu Serigne Guédé Mbacke jiite ko Serigne Guédé mu Serigne moom Serigne Cheikh Asta Walo ku ne xam ni mu demee fii ki Daaru Salaam nekkoon ci dëkk bi nekk fekk Serigne Cheikh Mouhamadou Mamoun ñu bari ci njaboot gi mu jàngal leen alxuraan euh, kooku ku ne xam na taxawaay bi nga xam ne moom la amoon fii ci dëkk bi am ko ci njabootu borom gaawaan ak njabootu Cheikh Mouhamadou Mamoun sëriñ Gede mii nekk doomam di borom xam-xam macha allah di koo xam ne eh, eh, so sori na ci fànn xam-xam yëpp moom moo jiite commission boobu topp ci sëriñ xaadim mus alxaaji seexu mbàkke alxaaji seexu mbàkke kenn mënta tudd maam Cheikh Anta wala nga wax ci histoire maam Cheikh Anta te doo ko ci boole ndax nekkoon na koo xam ne jege woon na ko te borom gaawam doy la woon na ko loolu ci lu bëree bari seen xaadim mii bokk ci ak njabootam moom tam di borom xam-xam di koo xam ne képp ku ko xam rek xam na ne borom xam-xam la ci fànn xam-xam yu bëree bëri suñu borom defal na ko ci tawféex ak sëriñ Afiya mi di doomi sëriñ Maxtaar moom sëriñ Afe moom sëriñ Afiya te sëriñ Afiya ak maam Cheikh Anta ñoo bokk e, soxna Anta Ndiaye ak sëriñ Mor Anta nekkoon seen lépp nekkoon benn. njabootu borom gaawaan ak njabootu suñu aafe di di genn njaboot gi rek moom muy boroom xam-xam di ab gëstukat kon tey ñoom ñoo fi teewal commission culturelle bi fas yéene ubbi liggéeyu màggal gi ànd kook suñu fàllu gala si lami moom ku ko xam-xam ku ci Daaru Salaam di ko am pasteef ku Daaru Salaam ñor ku ci liggéey lu bëree bëree bëri thème bi nga xam ne nag moom lañ jël ñoom tànn ko muy thème mu màggal gi mooy dawru maam Cheikh Anta fi daawa alxadimiya mooy ban taxawaay la borom gaawaan amoon ci woote sëriñ Touba bi ak naka naka la ko wuysee woon ak naka la ko taxawee woon ba woote bi àgg fi mu àgg yaakaar naa thème boobu nag ku leen xam ñoom xam ne danañ ko mën a yaat ñook ñi ñu àndal danañ ko fas yéene yaatul bu baax ci màggal gi loolu daal moo doon thème màggal gi nga xam ne waxtaan yépp du génn euh, tem boobu kon nag ñi ngi ñaan yàlla liggéey bi nga xam ne moom la leen sëriñ bi dénk muy liggéey bu diis mooy bi ëpp solo ci màggal gi muy xam-xam yàlla leen suñu borom defal tawféex bañ fas yéene ko def ko noo xam ne dana kawe ni ko sëriñ bi ni leen ko sëriñ bi séentu woon ba tax mu jox leen ko ñuy sàkk ñaan tam ci ñëpp ñu ñaanal ñu ba yéene ji nga xam ne moom la sëriñ aboo am ak njabootu borom gaawaan gi ci màggal gi suñu borom yeggale ko ci barkeb sëriñ bi kon ñu jébbal kàddu gi rek euh, ki euh, borom xam-xam yi incha allah taala ñu tàmbali leeral présenté thème bi nga xam ne mooy thème mu màggal euh, bi ak kàddu yu leer yi xanaa bala ñuy tàmbali jotaay bi rek ñu xam ne sëriñ Abo Mouhamed ginnaaw bu ngir woote bisu Serigne Touba bi daf ko ànd ak bisu Serigne da ko tàmbalee ci kër Alaaji Serigne Tako Mbacke ci Serigne Mbacke Anta nekk ci bopp jaar ci kër Serigne Ibrahima Mbacke Ndar Serigne Sidi nekk ci bopp jaar ci kër Serigne Ibrahima Soutiane jaar ci kër Serigne Ibrahima Soutiane Serigne Mbacke Anta nekk ci jaar ci kër Serigne Dame jaar ci kër Serigne Sam kër sëñ daan nekk ca bopp ba jaar ci kër alaaji Moustapha Ceytu sëriñ Moodu Maamun na ca bopp ba sëriñ Sidi Muxtaar yal na suñu borom ko yërmande tawfeex jaar ci kër sëriñ euh, Seex Toro sëriñ Sidi nekk ca bopp waaye jaar ci kër sëriñ Abdou Karim ci sëriñ Abdou Góora euh, euh, sëriñ Moustapha nekk ca bopp ba ak buntu këri kër sëriñ Afe yi sëriñ Saalihu nekk ca bopp buntu kër ba njabootu soxna Anta Ndiaye Mbacke gépp la ko tàmbalee ci kër sëñ Mor Fatou Touré ak mboolem buñ ko yëpp sëriñ mhm. nga toog ci jataay bi jiite lajjul saxaaf yi bi commission culturelle bi ñuy waajal màggalu Daaru Salaam ci ay waxtaan yu am solo yoo xam ne nit ñi daan ko mën a jariñoo waaye danañ ci mën a gën a xam ne kan mooy maam Cheikh Anta ak taxawaay ñu bëggoon rek nga ñëwal ñu ci thème yooyu nga xam ne moom lañ tànn ak taxawaay bi nga xam ne sëriñ Abou Mouhamed am na ko ci dëkk bi ngir dajale njaboot bi yëpp ñu àndandoo ci liggéey bu rafet. Euh, aoudu billahi min acheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, wa sallallahu ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa sallam euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu suñu kilifa yi di siyaari ñëpp yi di Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi ngi nekk Cheikh Cheikhul Xadim radiallahu anhu Euh, di ci teg suñu kilifa euh, Serigne Abo mi nga xamante ne bii moo fi nekkal euh, Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacké di taxaw taxawaay bi nga xamante ne bii moo ci wutu mboolem jëmoon borom gaawaan gi taxaw lu ñuy wax màggalu Daaru Salaam taxawal taxawaay boo xamante ne bii waajal lu ñuy wooye comité maanaam organisation taxawu màggal gi làmb commission yu bari commission culturelle nekk ci biir ñun ñi fi nekk ñu fas yéene koo taxawee fas yéene koo yore xam ngeen ne mënoo wax Cheikhul Khadim dañ naan boo nee màggul Daaru Salaam mooy li nga xamante ne bii mooy mooy lépp ndax moom mooy màggal gi nga xamante ne bii bu amutoon dañ naan genn màggal du am loolu lañuy wax ah boo gisee nag ren jii tey Daaru Salaam ci taxawaayu Serigne Abo bi nga xamante ne bii lii mooy màggal gi ko fi njëkk a fekk mu am initiative bu yaato yaatu boo xam ne fas yéene taxawaal taxawaay bu bees moo xamante ne bii bu bu ràññeeku la ci ci wàll yu bëree bëri loolu moo waral màggal gi rek ñu fas yéene ko doxale nii ren nag xam ngeen ne laaj na mbooloo bi buñ ne màggul Daaru Salaam képp kuy ñëw xam lan moo tax nga ñëw ci màggal gi xam lan mooy màggalu Daaru Salaam loolu nag mënuñ koo wax te wax waxu borom gaawaan kon ren dañ jël li ñuy wooyee dawru maam Cheikh eh, fi fi daawal xadimiya taxawaayu borom gaawaan bi mu taxawee woon eh, ci woote Cheikhuna Ahmadul Xadim loolu tey mooy thème principal bi ñu jël pour fas yéene ko waxtaane ci màggal gi bari na thème yu bari loolu ñu ciy waxtaanee bokk na ci yooyee nag tey taxawaayu boroom gaawaan ak maanaam def ci yoonu yàlla ngir yàlla al infaq fi sabilillahi loolu nag ñu ngi nii ñu ko waxee xam ngeen ne Serigne Fallou Galassi la ñu ngi bokk commission bi yore wàllu euh, communication ak presse muy fexe ba maanaam fépp fu ñu bëgg rek woote bi àgg fa ñu mu àgg fa te Cheikhouna mi yiti commission boobu kon ñoom yaakaar naa ne ñooy ñun ñooy ànd ak commission culturelle fexe ba lépp loo xam ne cult commission génne na ko fu mu fexe fu mu war a àgg mu àgg fa kon tey looloo tax ñu toog ak moom waaye nag liñ bëgg a waxtaan muy taxawaay borom gaawaan tey ci wàllu infaq fi sabilillahi loolu sëriñ xaadim inspecteur cheikh mu mu alaaji cheikhu moom boroom gaawaan mu ñëpp xam moo ñu fas yéene waxtaanal ak sëriñ xaadim euh, afe mii toog euh, moom sëriñ muxtaar di sëtu ba euh, borom gaawaan di sëtu sëriñ afiya kon tey waxtaan ñoom ñooñu koy defal kon bu ñu def lu may delloo kàddu gi sëñ Fallou Galassi la ngir ñu dugg incha allah ci waxtaan wi. asalaamaaleykum. jëkkër ga présentation bi nga xam ne def nañ ko léegi ginnaaw sa nuyoo Sëriñ Tuubaa dafa dafa woote ci biir woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne alxuraan moo ko fàttali waaye borom bi subhanahu wa taala moo ko def moo ko def loolu Sëriñ Tuubaa woote lan la Sëriñ Tuubaa woote ak woote boobu bi ko maam saxamte déggee nan la ci gisee bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin muhammadin annabi al ummi wa ala alihi wa sahabatihi wa xadimihi wa ummatihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di leen ziyaare nuyu bi ñu ciy jiital sëriñ Mouhamadul Muntaqa yàlla na ko fi yàlla yàggal te dolli ko ak wér ak kattan ba mu matt lépp luy yéeneem ci luy yëkkati yoon wi ak lu koy doxal ak lu koy tasaare ànd kook taalibe yëpp ak kër yi yoon wi yëpp nag di ca teg sëriñ Abo Mouhamed ba nga xam ni moo fi toogal sëriñ Moudou Mamoun eh, di kilifa dëkk bi eh, di jëwriñ ci bis bi ñuy waajal di bisub màggalu Daaru Salaam xam ngeen ni ñu ngi ci ñeenteelu fan ci weer bi ñuy wax diggi muy weer wu topp ci korite weer woowu nag saa yu teroo defe naa eh, murit yépp seen xalaat ak seenum xel mi ngi daal di jëm ci bis bi nga xam ni ci la Maolana Seexul Xadim fekk si woon Seex Seydul Moxtaar fii ci Daaru Salaam bàyyi ko ci tukkib géej ga mu doon bis boo xam ni duñ wax ni bisub murid la kese waaye bisub lislaam la ndax bis la boo xam ni lislaam moo ci am ndam ci kaw ay noonam ci taxawaay boo xam ni sëriñ bi taxaw na ko diggante ak noon bi ngir gën a yëkkat lislaam gën koo sagal gën koo tasaare kon day mel ni bu sëñ bi dellu si wuutoon maazallaahu ni ko sëriñ sama waxe bi mu toogee fii léegi kon day mel day mel ni du ñu tala màggal beneen bis bu bokkut ak bis bii kon la tax ñu war a màggal bisub tukki ba ngir ni sëriñ bi moom bis booba la jàpp ni li mu am ci ay may yépp ak ay daraja ca la ko suñu borom defale moo tax mu tànn bisub dem nga waaye ñun ñun taalibe yi nag ñun sunub cër mooy mooy ñibbisi gi bisub ñibbisi gi mooy mooy moo ñu andil xéewal yi moo ñu moo jox teraanga moo moo tax ñu tala nekk fi ba léegi sax di di di di yëngutu ci yoonu yàlla di ci di ci dox di ci xañtu euh, tànki sëriñ ba bu bu dellu si wutal yaakaar naa loolu duñ ko duñ ko am kon bis bi ñu mooy mooy suñu bis man bis bi ñu waree a ñun taalibe yi ñëpp ak ak lislaam ji yëpp moo tax bis boobu di bis bu màgg boo xam ni euh, fii la ko sëriñ gaawaan doon euh, tatagale sëriñ bi bu mu bàyyi ko ca tukki boobee Euh, dellu si gi doon dellu gu gu rëy ndax réyut di ci sëriñ bi loolu ndax la muy nekk ci tukki bi lépp li mu doon ñaan mooy dellu si waat te dellu si gu it da ci doon tudd daaru salaam xëy na yoon bi muy ñëw jaar na fa bare bari waaye fii la jëm si woon fii la tekkee ab yóbbalam ndax ñibbi si daaru salaam doon ñaan saa yu saa saa yu saa yu saa yu saa yu xelam demee ci réew mi rek daaru salaam lay jiital ci nammeelam ak yàkkamti fee ñibbisi euh, am na fu muy waxaan naqaltani min watani daaris salaam fa ruddani laha maafan muafan yaa salaam nag ma delloowaat ci sama samam réew muy daaru salaam nga la jàpp ni mooy am réewam mooy ab dëkkam kon maa ngi ñaan nga delloo ma fa euh, euh, ma ànd ak jàmm ànd ak wér-gu-yaram ànd ak lépp waxal waxaat na fee ni sa altuhu bil Moustapha xayril araam taajila aw bati ila daari salaam maa ngi naan suñu borom te darajay sang bu tedd ba Moustapha alayhi salaam mu delloo ma ci lu gaaw daaru salaam ka nga xam ne mooy suma dëkk. waxaat na fee ni kuffal ida anni wa qutniya ila daari salaam zaarida in wa ila na nga ma fegal noonu yi nga xam ne ñoo ma indi fii ma nekk ci wetu tefesu géej gi ci Gabon. nag ma fi jëlee yóbbuwaat ma daaru salaam gee nga xam ni ah, ma ànd ak ay ngërëm ànd ak ay xiiwal am na feneen fu mu waxee doo xam ne day wane ni màggal gi màggalu daaru salaam ñëpp ko bokk jullit ñëpp ko war a bokk di ko di ko di ko feetoondoo loola moom ci weesar la ko wax wa basiril muslimina wal muslimaati bi liqaa yi wa ruyati yi wa sam'i rujuu'i ila daar salaam waaw ñaan suñu borom mu mu mu mu mu mu delloo ma mu delloo ma ci samam réew jullit ñëpp bëgg ci sama dellu si sama dellu si Daaru ñëpp gis ma fa bëgg ci bis bi ngir bis bis bisub lislaam la kon bis boobu mooy moo moo dëgmal si ñu bëgg koo euh, màggalaat bëgg koo fàttali ko ànd ko jullit ñëpp ànd ko murit yëpp ak taalibe yëpp di ko di ko dundale taxawaay boo xam ne Sëriñ Gaawaan amoon na ko ci bis boobu bisub dellu si googu ci ngan gi mu ko defaloon fii ci Daaru Salaam bu ko defee kon dana laaj ñu xam tuuti sëriñ bi bi mu ñëwee bi mu jógee jóg dafa yëkkati woote bu rëy boo xam ne woote bu lislaam la ndax dafa fekk lislaam ji ràpp euh, sunna ràpp jikko yu baax ràpp ak ceddo nar a dellusiwaat ci réew mi tubaab bi ñu ba ko not nit ñi bëgg leen delloo ca ceddo googee bëgg leen a génn ci lislaam sëriñ bi jóg nag woogasu bëgg a fekk loolu ba du am mu doon woote bu rëy boo xam ni waxal na boppam li mu ci li mu ci jublu te mooy dundalaat sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam li may yéene mooy yeesalaat sunna si yonent bi salaatu salaam ba mu yeesaat ba mu delluwaat nekk fa mu nekkoon lislaam yëkkatikuwaat nee na loolu mooy sama sama boote woote bi nag bari ay gàllankoor lool ndax woote bu tol noonu ku ko yëkkati eh, noonu lislaam yi du ñu du ñu du ñu du ñu dellu ginnaaw ci jéem koo gàllankoor jéem ci xab suuf. moo tax ñu séq ak moom li ñu séq nag li ñu nag moom bu ko defee nag woote bi tamit ku ko yëkkati kon da nga soxla ay kàngam yoo xam ne ñoo lay ñoo lay wër dar la ngir mën laa euh, euh, euh, kenn ku nekk fa nga war a féete nga féete fa maam Cheikh nag bokkoon ci ñi nga xam ni suñu borom da leen a baaxe waajal leen ñuy mbokk ci sëriñ bi ginnaaw bu mu nekkee bu mu defee boppam ab taalibe mbokk gépp mu tekk suuf féetale boppam diggam ak sëriñ bi def ab taalibeem boo xam ne daa fas yéene euh, lépp loo xam ne soxla na ko aajo woo na ko ngir woote bii gën a yaatu gën a gën a jëm kanam mu fas yéene ko taxawe sëriñ Gaawaan nag ba la ñoo ci waxtaan wi war nañoo fàttali ni moom Cheikh Sidiyal Muxtaar mooy turam bu mag Sidiyal Muxtaar al Kunti yi moom lañ ko tudde mu nekkoon kàngam lu mag ci yoonu tasawuf Euh, kàngam la woon ci yoonu tasawuf moom lañ ko tudde euh, euh, wax nañ ni sëñ Cheikh Sidi Kabir nga xam ne sëñ bi fekk woon na ko Mauritanie moom it mas naa fekk si sëñ bi njaareem sëñ bi ganal ak ganal ganal gu mag Cheikh Sidi moom wax nañ ni Cheikh Sidi al moo ko jàngal Cheikh Sidi Muxtaar moo ko jàngal bindi téere yu bari téere yi mu bind bokk na ci alkawkubal waqaat defe naa ci téere yi gën a ci téere tasawuf la bokk moom lañ ko tudd moom lañ ko duppee mi ngi ganee àdduna dëkk bu ñuy wax Poroxaan ci mille deux cent euh, cinq quatre-vingt-cinq ci atum gàddaay tolloog mille huit am ñu ni mille huit cent soixante xam nga ni taarix ñaare dañuy wuute ci ay dat waaye wuute googu daanaka euh, du wuute gu sori lool ñaari ay ñaari at ak at lay doon wala benn at loolu mënut a ñàkk ci histoire soxna Anta Ndiaye mooy waajurum bu jigéen Serigne Mamadou Anta Sall mooy waajurum bu góor njàngum alxuraan nag mi ngi ko jaar ci ku ñuy wax sëñ euh, Cheikh moor Seck moo ko dalal ba mu xaw a sori ginaar bi sëñ Abdourahmane Lo ci la eggalee alxuraanam bu dee njàngum xam-xamam nag sëñ Maam Mor Jaara moo ko jàngal xam-xam Serigne Touba moo ko mottali njàngum xam-xam moomu kon foofu ci njàngam ci lu gën a gaaw ci foofu la jaar waaye ba mu nëppee ci waajtaay woowu nag nga xam ne sëñ bi waajale na ko noonu euh, la jël léppam nag fas yéene koo féete ak sëriñ bi. taxawu ko ci wooteem bi ba dara du ci sooxe rawaate nag ci wàllu financement xam nga wàllu financement wàllu alal euh, mënta ñàkk ci woote bu nekk l'islam bi sax ba muy sug a jóg loolu da ko soxla woon soxla koo xam ni ña ca taxaw woon l'islam ji am gu mu am solo tax na ba yonent bi euh, jox leen martaba bu kawee boo xam ni defe naa euh, dépense ci yoon yàlla rek moo ko mën a maye ku mel ni Seydina Ousmane radiyallahu anhu Euh, bari na lu mu dépassé ci lislaam ak fu mu fu mu fu mu taxawu jullit ñi buñ daa xeexi soxla waa ay ngànnaay soxla waa ay waruwaay soxla waa ab dund te daa nangoo jël alalam jépp def ko ca ba yonent bi salaa salaam wax ci moom ni maa darra Ousmaanu maa amila baxdal yow mi Ousmane daal lu mu defati ginnaaw tey jii ci ab safaan sax dootu ko wàññi dara maa daal mba dañ koo mbaa yàlla mbaa yàlla googu li ko may mooy joxe ci yoonu yàlla moo ko may euh, ndax xam gum xam suñu borom woote gum ci woote digge ci ay yool yu bëree bari masalul la si yunfiquuna fii sabilillahi ka masali habatin ambata safa sanabila wane yoolu joxe ni ko suñu borom di fule ni muy fule mbay nga ji ba wenn fepp rek mu jëlal la ay junniy fepp ah, loolu ci mbéy rek nga ko mën a amee waaye dépense yoon yàlla it noonu la demee eh, kon sëriñ gaan bi mu tëbee moom daa tëb rek wuti li nga xam ne mënut a ñàkk ci woote bu nekk ngir ñu uuf ko dox te mooy alal joo xam ne mooy mooy tax doo wéeru ci kenn mooy tax nga moom sa bopp waaw ah, mën a doxal li nga bëgg a doxal loolu boo amutoon defe naa yoon wi pour muy egg fi dana xaw a jafe kon defe naa képp kuy dépense ci ci yoon wi ngir dundal ko sëñ gaa moo ci sa royukaay ndax moo ci njëkk taxaw taxawaay bu taxawaay bu mel noonu féete ci sëriñ bi xam naa sëriñ aafe mii ma bokkal ñu bokkal jataay bi moom moo war a dugg ci tomb boobu gën koo yaatal mm. eh, eh, xeeti eh, xeeti xeeti dépense yi nga xam ni sëriñ Gaawaan doon na ko def ngir taxawee ko yoon wi ngir ngir ngir ngir ngir gungee ko Serigne bi ci woote bi loolu dana ci dugg ci anam gu gën a yaatu euh, xam naa kon damay dama ko doon ubbil noonu rek euh, xam naa bu ñu ba ci kanam bu fekkee laaj nañu duggaat du ñàkk ñu duggaat barkeelu ci euh, ci tool yi incha allah mm, baarakallaahu sëriñ Xaadim Mbàkke mu alxaaji Seex Mbàkke mm. ci li nga ubbee jotaay bi lu am rawatina eh, li nga xam ne moo di dëkk bii di Daaru Salaam ak bis bi ñu dëkk moom. Mm-hmm. ñu di màggal Daaru Salaam. bi ne. Mm-hmm. bi nekkee ci tukki li ma wax sama réew mi nga xam ne. Mm-hmm. yaa ko tànnaloon muy Daaru Salaam. muy sama yoo xam ne jaamu yàlla eh, fi mu jaar bari na waaye Daaru Salaam rek la jëm si bi mu ñëwee Daaru Salaam it dafa mel ne fàggu na fi ay. ay sérité yu bari mm-hmm. ndax boo delluwaatee ci gasar woowu wax ñu ñaan yàlla mm-hmm. sama delluwaat génne delluwaat Daaru Salaam na nekk mbëgu jullit yi mm-hmm. rawatina réew mi ñu bàyyi ko woon loolu it ñaan na it ne sama delluwaat génne delluwaat la di leen tàbbal àjjana bu ëllëgee boo delluwaat ci biir xaside maanaam yaa mursidan illa ya xaada rusda yaa man lahu shukriya min fil xehda day mel ne kon moom màggal gi sax moo ko njëkk a tudd laata màggal gi am. Hmm. ndax mooy cant boobu muy sant yàlla ci weeru sol xëy te loolu mooy màggal bu Daaru Salaam. Hmm. léegi nag màggal bi moo doon seet sëñ Tuubaa tuddal na ko boppam. Hmm. yaa si la inda yaa xaaba rasuba yaa moom si kon am na solo lool. ci li nga ubbee. rawatina nag woote bi nga xam ne sëñ Tuubaa woote na ko. ñëpp fex dëkk moom jëm ci seen borom subhaanahu wa taala ak ñu ba ñu ko ñàkk ba ñu yóbbaale. te bokk na a wóor nit balaa mën a jaamu yàlla daa wér hmm. suuroo ba noppi it daa lekk ba noppi moom Cheikh Anta nag amoon taxawaay xam ne Sëriñ Tuubaa amul jotul wóore tool di bay du sàmm du def ci oto di def transport te du dara boroomam la dëgg hmm. mu si ci moom di ànd ak moom ku xiif mën la lekkal lii ku mar mën la naanal ci lii te loolu mooy dépense dëgg dëgg sa anam ci yoonu yàlla loolu moom bëgg Sëriñ Afia Muxtaar àddu ci biir tomb aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli <laughs> mbokki senegal mbokki àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu teew fii tey ci Daaru Salaam euh, sëñ Fallou Galas ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp rek di jiital ci nuyu beeg siyaar bi euh, sëriñ Abo Mbakke euh, di ko ñaanal subhanahu wa mu yàgg fi loolu tànn ak wér ndax yayoo na ko te it itam Euh, dana baax ci noonu di nuyu sëriñ Cheikh Anta mi nga xam ne mën nañ ne mooy xutbu raxal Madina bokk ci min amidati tariqati wa rakaisiha di ko ñaanal moom it mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci gàttal rek cib tënk dafa am loolu daanaka gaa ñi wax nañ ci ba daanaka bàyyi bàyyi luñ ma place bu ma mën a waxee sëñ xaadim sëñ saam astabaarakallaahu sëñ euh, Fallou Gala Silla daanaka li ma wax nañ ko waaye nag xam nga lislaam mm-hmm. moo am nu mu demee mm-hmm. infaq boobu nga wax léegi maam Cheikh da koo féete woon moo tax mu jël raw gàddu gi mm-hmm. waaw xam nga lu tax réew mi nag dañoo nekk ci réewum firi looy wax da koy firi réewum firi réewum firi looy wax da koy firi laajatul ba mbëstal comme ni nga xam ne noonu mën ngaa joxe ay preuve ci téere waaye dëgg ne waat itam euh, nga ko teg bi adillatin wa xujajin wa bara wa barahina daamixa euh, loola wàccuwaay boobu lay am ni mu amee ci téere yi maam Cheikh Anta diggante meeg infaq màggal gi doy na ci ab tegtal hmm. da cay joxe bind bind bu tooy hmm. waaw lil ajjalil qadima mooy wane na nan lañ war a liggéeyee la yàlla ci waaju baax hmm. ci teraanga maanaa lépp luy xeetu teraanga def na ko ci infaq loolu lépp di dugg ci infaq def na ci ba def ci loo xam ne ba fii may wax ak yow defe naa ko ci seen pëndam amut ndax koy gane koy ganale di ganale ba àgg ci bëgg sa àll jàpp la nga bëgg a tër nit ba koo rendi loolu dama tey def naa gaa yi àgguñ fi de kon loolu bind la ci infaq hmm. infaq boo ko seetee mooy lislaam boo seetee xaajil diine yi te mooy imaan lislaam lexsaan lépp day dugg ci biir infaq lépp lépp naa la ko firi hmm. boo seetee arkaanul islam al xams al xamsa day dugg ci biir infaq ndax infaq dafa dafa seetalikoo ci ñetti pàcc infaq benn mu nekk doole yaram wala doole poos wala doole am xel waaw lépp mën na day dugg ci infaq te mën naa ne nag ñaar la sax waaye boo ko boo boo ko boo ko faram fàncee ñett ñett lay waaye boo ko bëmbëstalee ñaar lay doon hmm. ndax in ndax euh, dooley yaram ak doole poos day dugg ci xitma xam nga xitma ba mu addiyee du am foog xitma am addiyee soog am kon mel na ne kon benn la muy dokk ak doole xel nag te loo ci gis rek maam seexante def na ci infaq boo xam ne a ah, gisaguñ ko di mel de loolu nag fadlullaahi la ndax xam nga alxuraan dafa ne wa annal fadla bi yadillaahi xam nga lu muy firi wa annal fadla naka ngëneel maanaam maanaam mban kudd gi kuy tibbaate ci loxol yàlla la ne te saa borom nee mu ci tëbb jàmm bu ko soob man jooju is man jo man jooju mani mani mawsul la de man la wax waaw kooku nag moo ci tëbbu seex nag te tëbbi ko ci noonu yi ca nam ko soobe ndax xam nga tawféexi maam Seex Anta mi nga tàmbalee ci sëñ Tuubaa dafa wax ne seex rek laa def ci laa def ci seex waaye tawféex ji dama ko cee fekk hmm. tawféex ji naa la ci jox firnde ndax xam nga infaq la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qaatala ulaika azamu darajatan bul yaakaar ni ñi nga xam ne dañoo joxe seen bopp te infaq ba infaq jeex joxe sa bakkan ci gën a moo ci gën a gaaw joxe sa bopp loo am teg ca mooy ak murid joxe sa bopp loo am ca loolu loolu la maam Cheikh Anta def nag soxna Anta Ndiaye ne joxe ci bind ba yow mal am joxe na ci bind boo xam ne koy doon murid noonu ngay def ndax ndax moom da bés maam seexanta Anta dégg nga ndéeli ba mu ko déggee ca mam mam Mor Anta Sali ba mu ko ca déggee xam nga daawoo maam Cheikh Anta ne ko sa mag yi kat bu la ci gën jiitu mënoon na ko wax noonu mënoon ba ko noonu de waaye daay rékki ay gànjaram jox ko ne ko wan ko ni ñuy yëbbuloo kon waree naw yoon yonent bi nag dafa wax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha képp koo xam ne fent nga yoon wu baax da nga am toyaaba ja ak toyaaba yi képp ku jaar fa nga wax kon mu mel ne kon ba yomal ka am képp ku jébbalu soxna Anta Ndiaye ci boo ko yëgee boo ko yëgul am na ci am na am lu mu am ci sa njébbal di am na ci pourcentage ndax yonent bi ko wax de te xam nga koy jaayante moom jébbul joxe sa bopp loo am teg ba tey moom di te ba yomal ka am it mooy am te noonu nii la ko suñ soxna Anta Ndiaye jàngale maam Cheikh ko noonu taw foofu la tàmbalee xam nga laa sew minkum man anfaqa laay dellu siwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla def ko ne ñi nga xam ne dañoo def infaq joxe ci mooy joxe mooy sa bakkan ak sa alal mooy nga jaayante joxe joxe sa bakkan mooy nga nga ne kat kii may jaayante wala lii may jaayante wala tax may jaayanteek moom de sama bakkan bi du ko fekk te fekk bëgg-bëggam taxaw na yonent bi fekk na saaba yi doon ay jullit lu yàgg mhm. waaye nag daa daa waññe ko yoone woote yoonu jaayante jaayante boobee nag maam Cheikh Anta ko jaayante te jaayante nag moo ko ci secret sunu boroom dafa wax ne ñi nga xam ne dañoo jaayante li jiitu fatu Makka duñ yem ak garaat ñi nga xam ne dañoo jiitu nag dañoo dañoo jaayante après fatu Makka waaye nag yàlla neen kenn ku defal na la affaire nag ku la wax da la kon maam Cheikh Anta bu fekkee mooy premier talibé njëkk a li ëpp solo mooy raw gàddu gi te mooy infaax kenn yëmu ci moom ndax ba mu yorit kenn yorut nag wax dëgg wàlla ñu yor bëriwut loolu moom xam nga ba eh, waadixun waduxu shams fi rabiati nahar ah infaax xam ci wàllu xasida yi Sëriñ Tuubaa yi mu njëkk mu li xasida waaye léegi keneen kuy muul ku ne dañ ci am santage de ah, munu ñàkk loolu lépp xam nga lu leer la mm-hmm. lu du lu ñuy euh, lam-lamle mm-hmm. demal ci archive nationale yi tubaab yi mën a lii lépp boo demee daanaka ay dossier nga fay fekk mm-hmm. hmm? il faut xam ci kalam nga xam ne tey bari na lu sëñ Tuubaa doon diisoo lu lu mu daan def waaye maam Cheikh Anta bu ñëwee ne ko nangam nangam mu ne ko ndax xam ne Cheikh loolu làqoon na il faut xam nga ko maanaa ba ci bi mu jógee Gabon bokkoon nañ ñi du nga xam ne dañoo duggoon digganteem sëñ Tuubaa ak tubaab yi ngir seet nu muy waye fale nu tubaab yi wala waye fale seen loxo rek mu jaral ko lu ne ndax dañoo wax ne dëkk dëkk yu sori lañu naroon a yóbbu sëñ Tuubaa waaye bokk na ci li sabab mis bokk na ci ñi sabab mu tax ñu yóbbu ko gànnaar wala ñu am na ñu tudd sax Madagascar te ñoom teqali ko sëñ bi te fekk na ah, jàmbu rekk di xew loolu moom dara jëru leen ku ci àddina waaw ba tax na wàllug infaq xel wu ci waay mën a daw mënatoo jot maam Cheikh Anta loolu nag fadlullaahi la kenn ku ne nag am nga lu soob yàlla mu defal la ko ndax sëñ Tuubaa du benn kaas kenn képp ne ko deng naan di xoor say morom loolu mënta ne waaye nag lii moom tey sëñ Gaawaan la ñuy waxtaane ci diggante bi ak infaq ah diggante bi ak sëriñ beet da cee amoon xaas da cee amoon xaas ndax dara ëpp ci doole dëkk bii di Daaru Salaam nga xam ne deel xool li li mu tudd ci xasida yi Daaru Salaam sax defe naa tudd ko Touba Gueye mën nañ ne mooy première capitale u mouridisme ah mu am mansila boo xam ne ah bu am solo la nga xam ne fi la njëkk amib dëkk mu jékki-jékki jox jël ko dafa ko maam Cheikh ak ña ko toppoon ci ay taalu bi xam nga loolu tawféex la loolu xaas la ndax xaas mooy loo xam ñëpp amuñu ko kon kuñ war di waxtaan li muy bind boo xam ne la ko mayoon loola dafa war di des ko war di waxtaane mooy xam nga nit xam nga maam Cheikh Anta bari na xisa yoo xam ne dégg nañ ko ba tey waaye dañuy fab al même arab yi sax dañuy def bu ñu la defalee benn texte dañ lay def al ibratu min al waaye li nga man a waaroo ci teg texte bi bokk na ci yii ma la wax xam naa yu ci bari ci gàttal da dul ci waxtu waaye dañ ko tasaare ci yenn plateau yi insha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu siyaate euh, yaakaar naa téléspectateur yi jàkkaarloo ñun ñu seetaan faw ñu laajaat ñu kii nekkan mhm. euh, ci ni nga na ko def ci poos mm. mm. loolay poos des na ko def ci am xel mm. euh, li nga wax ne def na ko def ci doole mooy ci réewum firi yaakaar naa ne ci Mbàkke tàngaay bi bari loolu def doo rekk lu def waaw ci aw ñëpp am na ko defee. Hmm. ngir mën ngir jëm yàlla. Hmm. ngir màggal kii nitu yàlla. Hmm. yaakaar naa mu ci poos itam. mën naa am Cheikh Anta at am na at moo xam ne dañuy wax ne réew mi boobu sëñ tubaab yi guerre bi dañ soo jeex. réew mi crise ñàkk am. maam Cheikh Anta tey maam. commandé fa ceeb ba tax ceeb. mu nekk quatre mille tonnes. Hmm. ñu wàcce ko bi ñu ko indee daf ne gaar bu ne leen fa wàcceel foofu la ko wàcc. ñu séddale ko réew mi ndax fi nekk dañoo xiif te ñu ci seen hmm. tubaab yi bi ñuy cas seen bi. Hmm. xelal maam Cheikh Anta daañu liggéeyee ak tubaab yi. ngir yàlla bu ñu bëggee yàlla seen i ja seen tubaab. boo ëppee maam Cheikh financé ci hmm. hmm, hmm. ndax bu dee ci ak bokk ñoo bokk baay bu dee ci ak bokk seen ñaari day ñoo bokk baay bu dee ci ak bokk bàyyi na ñaari kon man si nga bu dee rek seen tubaab di doomu bàjjanam bàyyam ci nijaayam mooy doomu nijaayam loolu ci ba nga di loolu bëgg bu nijaayam seen tubaab li ñu bokk moom bokk na te li ma la wax dal na sëñ en fait dal na maam Cheikh Anta. ñoom mhm. sëñ Tuubaa bokk bàyyi. ñun mhm. seen mag. Mhm. bàjj seen yaayu sëñ Tuubaa seen bàjj la. seen bàyyi. seen yaay la. bàyyi sëñ seen nijaay. ba noppi ñu bokk yaayu sëñ Tuubaa la. dëgg la kon nijaay la dëgg la. kon nit ñi ñuy bokkee noonu ñoom bokk na. waaw teewul ñu jaay loolu lépp. di wut ci loolu yàlla. kon il faut que mu jëlee si loolu. yaakaar naa ne tomb bi leer na lool. Mm-hmm. sëñ Xaadim ba dugg ci dëkk bi di Daaru Salaam. Mm-hmm. wax ne bokk na ci tawfeex yi tamit sëñ bi maa ko waxoon seex la yi lu dul tawfeex ji rek naa ko def ci moom waaye tawfeex ji da mm-hmm. na ci nga am ko ak lu waroon a jafe yombalal ko. yaakaar naa moom la sëñ Tuubaa njëkk a sant bi mu ñëwee ci géej gi fu a nekk fi lay ñaan a dellusiwaat. dëkk boobu bokk na ci taw feex yi ma rafaatale ko maam saxam waaye bokk na ci taw feex yi mu dem ci tukki bi del maam saxam bokk fekk na ko bokk na ci taw feex yi itam sëñ Tuubaa yi mu dëkk ko mu yaakaar naa juróom yooyu bu mu ko doonee léegi si dëgg dëgg taw feex bu mu doon gën a wax foofu laata ñuy tëj jotaay bi mm. tayib euh, <coughs> ah sëriñ Galas noonu ko ko waxee noonu la demee Euh, sëriñ bi ma waxal boppam loolu seeral ko suñ gaawaan ni lu dul tawfeex ji rek maa ko def ci moom taw tawfeex ne ci laa ko fekk kon da ko dikkaale jamono euh, wax nañ ni moo tax saa yu mosaa jub sëñ bi sëriñ bi day muuñ euh, daat ni wamaa tawfiqi illa billah wax nañ ni it saa yu ñëwee daana ko wutal fu mu toog ngir teral ngir teral ko daana laaj ñu indil ko fuñ ko lu ñu ko lalal mu toog ci waaw xëy na nag mën naa am sëriñ ngaa moom du nangoo jël ci ràng ji waaye nag sëriñ bi dana ko wan ne ko fii laa la teg ba ñu fa nekk ñëpp xam dara jam ci moom ni ko suñu affaire waxee it mooy wax nañ ni daawu ko daawu ko bañal benn xalaat bu ko jox daa di diisoog moom te xalaat bu mu ko jox da da koy jëfe xanaa mooy li wax ni eh, eh, danaan moo ne loolu nga wax de dëppoon ak li ma suñu boroom digal kon loolu mooy day firndeel taw feex ji euh, bisub màggalu daaru salaam defe naa ni ko suñu affaire waxe moo gën a firndeel sëriñ gaawaan euh, effort yi mag yi mu def ci wàllu dépense ndax wax nañ ni juróom-ñetti fan ayug bis gu tegal bis bu nekk nga nga rey lu mat fukki nag ak ñaar te bokk te giléem yaak xar ak nangam nangam ak la cay ànd ci teraanga diir bu yàgg boobu ba xelam nekk ci ren nit loolu yaakaar naa euh, ah, ah, ah, dépense ci yoon yàlla mun a weesu loolu waaye ci bis boo xam ne dañoo jàpp ni bisu feetu jullit ñëpp ñoo ko war a feetu bégge ko loolu la ñuy dundalaat ba tax ñu daja fii te di ci waxtaan waaye xam ngeen li ñuy wax nisér tim ci lislaam daa am doole nisér mooy jàmm yàlla goo xam ni euh, da ko fas sa diggante ak su borom ngir def ko te du farata suñ borom yàlla dogal xëy na euh, jotoo koo def am ku la wuutu sa ginnaaw koo xam ne moo la ko defal ngir mottali la sa yéene loolu lu am lu lu lu kawe la ci lislaam te sëñ gaawaan defal na ko Seexul Xadim kenn kon xam na ni ñetti misir yi mu fi bàyyi woon ci li siiw mooy jumaa jumaay Tuubaa ji ci la bokkoon jumaa ju mag yoo xam ne ñëpp dañ fay ak daara joo xam ne réew mi yëpp Afrique yëpp fu nekk nit dafay jóge ñëw di fa sàkku si xam-xam xam naa mooy naal bi nga xam ne moom la suñu iblaat naaloon bu yàgg suñu mun taxaw fas yéene koy egg la gën koo yaatalaat mooy moo nar a jëmmal daara jooju waaye bokk na ca ay niséram nag mooy ziyaare ji baytullahi al xaraam loolu moom ak ziyaare ji yonent bi alayhi salaam loolu bu mag la woon boo xam ne sëñ bi niséral na ko mu nekkoon aajo joo xam ne ju tar la ci moom daana ko waxtaane ñi ko jege waaye daana ko feeñal ci mun munaajaatam wa huwa allati ayqa jismi an ziyaaratihi lakin lisaani lahu xalxal bi zawaari ci raaya day wone ni loolu lu doon dund ci xolom la loo xam ne lu dëgër lu mu bëggoon te jotu koo mën a def moo tax bi mu fi bàyyi ko rek suñ gaaw li mu njëkk a xalaat mooy dajale lépp lu mu am ngir eggaleel ko yéeneem jooju loolu it danga def naa façon façon euh, ci xeetu dépense ci yoonu yàlla la woo xam ne weneen gënu koo kawe bokk na ci rek dañuy gaawtu ndax waxtu wi euh, xam nga ni tabax néegub yàlla lu am solo la ci lislaam man banaa lii masjidan euh, banaytu lahu baytan fil janna li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ku ma tabaxal ab néeg suñ borom moo ko wax mooy fi ñuy jaamoo yàlla dinaa la tabaxal kër ci àjjana kon tabax jàkka wala jumaa lu am lu kawe la ci lislaam waaye kawe gi dana da dana gën a yokku daraja su fekkee néegu bu yàlla boobu dafa tàbbi ci loxo ay noon ñu dox digganteem ak ña ko moomoon ba mënu mënatu faa def seen jaamu yàlla. ngir lu dox seen diggante sëriñ Gaawaan ñëw fexe ba loolu yëkkatiku ci ci ci ci poosam mu def loo xam ne fexe na ba barab boobu dellu ci ay boromam ñu mën ko jëfandikoo nañ ko doon jëfandikoo ci yoonu yàlla ngir woon leen nit yéen ñi ko def da ngeen bëgg a toroxal diine waaye du ma ko du ma ko seetaan. loolu defe naa moo moo gën a kawe sax tabax jàkka ndax tëj jàkk yi suufeel diine da cee nekk ak woyofal ko waaw jàkka ju amagul wax xam nga xam xam nañ ne daa amagul mën a guñ ko waaye jàkka ju taxaw ba nopp ba seeni borom yore ko di ca def seen jaamu yàlla keneen ñëw tëj ko ngir eh, alal ju dox seen diggante loolu day mel ni woyofal diine da cey dugg moo tax ma am seexanta nangu wut seetaan loolu eh, nanguwul poosam seetaan ko mu yëkkati eh, fexe ba libéré waat jàkka jooju delloo ko seeni borom ñu di ko jëfandikoo loolu defe naa it Eh, ci xeeti eh, ci xeeti kii la bokk eh, maam Cheikh Anta ay dépense mi yëngutoon rek ci wàllu diine waaye wàllu li ñuy tudde ci jamono ji aide aide communautaire nga koy tudde wala aide humanitaire maanaam dimbali ay doomu aadama rek dundal teral doomu aadama rek waaw ci ci ak ak ak ak ak ak fu mu mën a bokk lu mu mën a doon moo xam ci yoon wi la bokk wala bokk ci waaye nag doomi réew la wala kii defe naa joxe nga ci exemple ci at yooyu nga xam ne daa amoon euh, bekkoor bu am mu jënd ab dund séddale ko ñëpp waaye réew mi ñëpp yem ci ngir ñu mën a jàll jafe-jafe boobu defe naa loolu euh, maam Cheikh Anta kenn jiituwu ko ci. defe naa léegi bari na ay organisation mondiale ak ay organisation non gouvernementale yoo xam ne dañuy jóg nekk ay ONG di dox ci wàllu googu di ko tasaare waaye ay tubaab ak ak ak ak ak ak xeeti nit yu bari dañuy def loolu léegi waaye day m ni maam daa dafa dafa dafa teel a am ak ubbeeku ci àdduna ak ni muy doxe waaw foofu day mel ni ñu ñun dañ fi doog a egg fekk moom xalaatoon na ko bu yàgg jamono jooju yaakaar naa loolu bëri wutoon waaw xeeti organisation yi defe naa léegi la tasaaroo mais amutoon mais maam Cheikh moom loolu xelam teelan na koo jëli xolam egg ci ak ak ak ak yërmandeem mu def lu mel noonu bokk na ci xam nga wàllu commerce ci liy doxal am réew la bokk commerce bu bëgg a daanu wala gox boo xam ne laaj na euh, lu ko suqali ci wàllu ci wàllu ci wàllu koom-koom nga nangoo génne sa alal euh, def la ñuy wax euh, subventionné commerçant yi ngir ñu bañ a tàyyi ci ci di ñëw ci marché bi di ko dundal ngir économie gox boobu mën a mën a dund mën a yaatu bañ a fa nekk mën a dund dund ku yaatu loolu lu am solo la te def def na ko ci marché Touba Toulbé ku ñëw jaay si ba ngoon boo jëralut mën na ngoo jël sa marchandise jox la sa la nga ci defoon ak sa bénéfice nga dem ngir nga bañ a taajee dellusiwaat xam nga loolu mooy économie bu bëgg a daanu wala bu wala bu néew doole nga nga taw ko ba mu ba mu yëkkati ngir waa gox bari mën a jariñu boppam taxut. Mm-hmm. waaye ñu dëkk ci gox wala bëgg ñu suqali ko jëm kanam te bu marché bu jëmul kanam dañu de loolu du am loolu defe naa lu lu kawee la ci wàllu dépense mm-hmm. ci ci ci ci ci yoonu yàlla mm-hmm. digganteem wàllu politique tim xëy na politique yi teelu ko woon sax waaye euh, teewut euh, def na ci taxawaay bu am solo digganteem ak Ngalandou Diouf ba mu amee jafe ci bëgg bokk ci élection te am lu mu war joxe loo xam ne su ko joxul du ci mën a bokk tam am yaakaar ci ni kii xëy na ku mën a jariñ la ci réew mi wala ku mën a jariñ askan wi la mu taxawu ko ba loola mu mën jafe-jafe ba koo jéggi mën a bokk ci élection yi mën a jàll loolu defe naa def na ci taxawaay bu am solo boo xam ni euh, Euh, loolu sax am na ñu ni mooy sababus demam ak demam sigoom am na ñu ni ci loolu la juddoo donte tubaab yi beneen beneen sabab la ñuy wax sax waaye sabab boo am nañu am nañu jàpp ne ci bi bi gën a kawer ci la bokk jàppale ki mu jàppale woon Galandou bam bokk ci election yi te gars yi bëggoon nañu koy éliminer ba du bokk mu taxawu ko ba mu bokk ci élection yi loolu tamit lu am solo la te loolu yi daanaka da koo defoon rek xëy na niru na politique sax waaye mën naa am moom xolub yërmande la ca amoon ak xolub li ñuy wax humanité rek ah, ndax diggam ak ngelaw li demewutoon noonu waaye ay nit ñoo gis ngelaw ni ko sa jaaxle gii day kenn rek lañ xam ne boo jokkoo woon ak moom xaj na dana la mën a dimbali ba nga euh, euh, ba nga faj sa soxla si daal koy tudd sëñ gaawaan mu dem ca kon day war ni seen diggante du woon ak xaritoo gu jiitu ba tax mu defal ko loolu waaye euh, wàllu ko insaaniya ak humanité rek moo tax mu def ko ak ak bëgg a dimbalee sëñ Mbàkke Busso sax moo tax leetaram boobu mu def di ci défendre maam Cheikh Anta bi ñu ko yóbboo siiwu di wane ni dañ koo tooñ ak yooyu muy lettre bu day kimaan boo xam ne bu ciy wax sax day wane ni lisaanul xàq mooy wax day mel ni suñu borom subhanahu wa taala suñu bàkk bi sax daa taxawal taxawaay boppam mel ni yàlla mooy wax da wane ni Cheikh Anta moomu kat na ngeen xam ni noonu mu mel maa ko melal noonu maa maa ko bind ci melokaan woowu melokaanu joxe melokaanu yërmande melokaanu xir ay ay noonam buñ ko jaaroon fi ko ay xaritam jaaroon it danañu am ci moom li mu am wane ni ngëlalu ak xaritoo taxut waaye Bérés mii ab noonam sax bu bu njëkkoon ci maam Cheikh Anta wax ko soxlaa mi dana ko ko defal ndax mu yàllaa ko binde noonu euh, loolu tim euh, bokk na ci ay ay ay wàllu dépense bi def euh, bokk na ci ba tey kër yu bëri yu mu doon tabax ah ndar amoon na fa kër amoon na ndar Dakar Njaareem Xombal Tiwaawoon mbir ci laan Tuubaa fi rek amoon na fay kër këru yaatu yoo xam ni xam nga ab sëriñ bi tukki booy tukki ci dëkk bu mag euh, téyeroo fa barab nga fekk fa barab bu mel noonu boo xam ne sa mbokkum jullit moo ko tabax sa mbokkum taalibe sa mbokkum euh, deret moo ko tabax te li tax ba tabax ko muy ku ñëw mën faa dal man faa yaatu man faa nekk la nga fa war a nekk ba fa say soxla ñibbi loolu moom seexante moo ko jëkk xewal ci réew mi xëy na léegi la kër Sëriñ Tuubaa bari ci gox bu nekk waaye jamono yooyu moom moom moo amoon kàttanu capital bu nekk ci biir dëkki Sénégal yu mag yi mu am fa kër gu yaatu goo xam ne kuy dox ba egsi fa dib jullit wala ngay mbokkum taalibe wala nga bokk ci ci ci askan wi boo fa jaaree mu nekk sab dal nekk sa kër ba kër nga fay bàyyi ko xam nga loolu it lu am solo loo xam ne lu ñu lu ñu war a bàyyi xel te loolu suñ gaawaan def na ko ah, euh, ak yu bari yoo xam ni xam naa yëpp mu ne su ko mu ne su ko ne su koo jeexal waaye defe naa màggal gi ak ajug màkk gi defe naa ñaar yooyu lenn gënu ko rëy aji mag gi sax ñu ngi wax naan ba mu fa demee dépensé na fa ci maanaam jënd dafa lu mat e, junni xar ak téeméer yoo xam ne da ko may waa dëkk ba e, ñi ñi xam nga barab boo xam ne foo toll am na ñuy ñëw di siyaare si di aj si ñii di umra si nangam nangam te booba màkk ni mu mel melu ni woon booba pétrole bi feeñagut nañu bàyyi xel ñu bari bàyyi xel loolu waaw boobu maam sax te alal jëm fa yóbbu daf leen a jaaxal wax nañ ni kii naar yi kii lañ ko doon la la lañ ko doon tëkkaleel. borom alal ju bari la woon ci dëkkoon Mali xaw ma Moussa Mansa xaw ma waaw. Moussa Mansa Moussa moo fa Moussa indi daal or bu bari ay xaalis yoo xam naar waaye maam maam moo moo ñaaraaleel ñaareelaat loolu. waaw indi fa alal xam ne dafa yéem naar yi sax xam nga ko dem ba mën a jënd waaw. koddaay dañ doon def kaabe nga mën nga mën a war daal kaabe gi koddaay lu bees mm-hmm. daal di jël bu màggat ba indaale ko Sénégal ak yim fa indi ci bagage yoo xamante ni ay jeexit la yoo xam ni eh, sëti yonent bi ñoo ko moomoon Seydina Fatima radiyallahu anhu jënd lam yaag lal baag nangam nangam yim fa jële yëpp day wane ni eh, bam mu fay dama alal ju yaatu dafa la la la la la fa yóbbaaloon te loolu lépp ci infaq fi sabilillah la lay kii kon xam naa ni ngir bëñ a gën a guddal wala may kii kàddu gi xam naa ñu yem ci loolu ba keroog ñuy kàddu gi del sifaat yooyu. macha allah lu nekk yaa ko jëkk def ci réew mi. Mm-hmm. ci xeeti xayta kii bi nga def ci soow mi. Mm-hmm. yaakaar naa ne suñu tàkk tënkal nañu. li mm-hmm. ngeen bëgg a def lépp. dama sëñ affaire. waaw xam naa tëj jotaay bi. waaw eh, li nga doon wax ci infaq. da nga ko dëppale ak tawfeex. daanaka ñu ngi wax lépp ñaari baat yooyu nga indi rek la ñuy firi. muy eh, li mu daan dépensé alalam ci yoonu yàlla. ak tawfeex li mu am. bokk na ci. lii seen xadim bi boo ko dee seetee. da naan le vrai citoyen mooy moom sax. citoyen bu amoon njëriñ am réew. koo xam ne bu économique boobu nga daanu. nga redressé ko. koo xam ne bu nit ñi xiifee nga dundal leen. koo xam ne droit yi bu jotee nga ñëw taxaw parce que lu taxaw mot imposé ba samp ngelaw ngir solo réew mi rek lay doon. ak yéen bu tuddee maa ngi am. da nga naan seen xadim tudd na ko. waaw ci mhm. waaye bi muy dem màkk yi moo war na commerçant bi ñu wax Alaaji Mbaalo Seck fii ci tëgi mhm. ne ko ba nga dem na mu commerçant yi nga xam ne damaa bëgg ñu dem màkk bu ñu demee jënd marchandise mhm. bu bu ñu nag lañ fexe ba wut euh, dama dellu si ci moomu rek hmm. sëñ Fallou Gallas xam nga luy taw feexa mooy loo dëgmal fekk yàlla nar ko loolu mooy taw feex fekk yàlla nar ko lii lépp da koy firnde léegi nag xam nga luy question bi mooy maam Cheikh Anta fan la doon jële xaalis bi waaw waaw kay dafa bari danaa la ci wax na xar-xarab doj hmm. mooy ku ne xam ne ne moo njëkk a séddu loolu mu kenn wérantiwu ko ndax juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent ñoo fa njëkkoon a ne hmm. sëñ bi dem ci géej yóbbaale wu leen ko te ña ko yoroon ca di di indi addiye ba noppi sëñ maam Cheikh da daan bay hmm. mbay mu wóor di jënd ay ay gerte yu bari di ko jaay tubaab yi waaw opérateur waaw nga xam ne loolu ab dund la hmm. day wan ne sëriñ du coogee da ngay toog rek déedéet da war a yëngu ndax da nga war a joxe bind ndax fi ne gis nga même bu la yàlla doon def ab yonent da la fekk ci liggéey moo gën a wóor xam nga euh, maanaa damay bañ la radiallahu taala nu bàyyi asgare doon nett ni nee dafa am benn sëriñ boo xam ne dafa seexaloon maanaa koo xam ne dafa dañ koo seexaloon daal ñu seexal ko nag xam naa mu toog toog dara doxut toog rek ba di leen dara doxut rek mu toog rek ba yàgg far muy jooy nag ñu ñëw ne ko loo jooy mu ne ko dañ maa seexal te seexuma te seexuma ndax gaa yi ñu ngi nii te te tee nañ maa liggéeyi te nañ maa yalbaan bi te joxuñu ba dara <laughs> maam seexaat day bañ bu sa ceex doxuti sam liggéey dox bu sa bu liggéey dox baax na di liggéey bi dox ah mooy xet ma nag xidma moo tax ma la addiya du am te xidma mu ñaari doomi ndey lañ la si naag amono lañ kenn dem bàyyi moo ji kon maam Cheikh Anta li mooy dafa nekkoon jàmbaari liggéey yi sañ ci ay dëkk ginnaaw suñ Tuubaa ngeen wax maam Cheikh Anta dong kott kepp dong wax ma keneen ndax xusuus yi bi ne il faut ñu waxtaane ko maanaa suñ Tuubaa ginnaaw suñ bi bi mu def im fàdduloon ci géej gi moom rek moo fi doon sañ ci dëkk di sañ ci dëkk ay dëkk laa wax ñuy bay ginnaaw ginnaaw bi sëñ bi ñëwee nag ci géej gi ku sanc ginnaw ba ngay sanc waaw te te te kenn ku ne ba nga sancee bay yokk xam nga seex moom taxawul de moom day yokk de waaw ba 1903 moom moom sanc dañuy liggéey ba bi bi ñëpp sanceet ba kenn ku ne tàmbali am mbooloo sax da nga moom daa taxaw dé moom day moom day continuer nam rawee woon rek noonu lay rawee loolu nag bu duubal caa ah fokk mu mën dara <laughs> fokk mu mën dara sëñ bi ah euh, loolu la fa tabarakallah xam naa yu ci bari dañ ko mottaliwaat ah, insha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf euh, sëriñ Afe Maxtaar jërëjëf sëriñ Xaadim Mbàkke Seexu jërëjëf commission culturelle euh, itam commission communication Euh, mbokk yi lii mooy seen émission ëttum bi nga xam ne dalal nañ leen ko fii tey ci Darou Salaam ngir waajale ko màggalu Darou Salaam incha allahu rabbi mu war a nekk le 30 juin euh, njàngum alxuraan mu war a waaye ci njiitul nag sëriñ Abou Mouhamed xalifatu Cheikh Mamadou Mamoun ànd ak njabootu maam gépp sëriñ bi na mu ko daan waxee rek màggal gi daal dama bëgg lépp lu ci sëñ tubaa defoon li maam Cheikh Anta defaloon sëñ tubaa ca ngan ga ku ko mën nañ ko def ku daan màggal sit ko xam ne yëg nga ne boo yëgoon ne sëñ tubaa nga ñëw daaru salaam nga ñëw daaru salaam sëñ boo nee na tàll na la loxo koo xam ne rek ngan gi sëñ Touba gane si maam Seex bu la fekkoon ci réew mi nga fekk si ma sëñ Touba sëñ Abo nee mi ngi lay woo ci magal bi yaakaar loolu noonu la ko sëñ Abo waxee ñu ngi sant ñëpp di gërëm seen mbokk taalibe Fallou moo àndoon ak yéen ak sunu ñaari caméraman yi Alaaji Fallou Sow ak Sonia Adama eh, ñu ngi leen sant leen gërëm di leen joxaat ci yeneen jotaay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa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 سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له